jërë ngeen jëf bu njab yàggee nga war feeñ don dongob daara ba ñu rendi woon ci diwaanu Thiès observateur xëy na nañuy enquête ba feeñal na lool ku ko dégg jàpp sa gémmiñ jàpp leen l'observateur ba mu dëgër ubbi leen ko Moustapha Ngom di waa nga xam ne moo duggoon ca dara paakam ren xale boobee mook Mamadou Ba di bàyyi xale bi yéenekaay bi nee nañu ay xarit la woon la nga xam ne enquête bi wax na ko moo di Ba moomee nga xam ne xarit di dañu gëm ne waa la mu def daf koo waajal ndax dafa bàyyi ba mu leer ko ne dong bu mag nekkatul ca daara ja ay mbuucaa mbuuj dong ñoo ca nekk ci la dugg def ñaawte foowee yéenekaay bi nañu enquête kat ya la ñuy moo di ndax Moustapha Ngom mi def loolee du borom daara je Serigne Bassirou Kane moo ko yëkkati woon ndax du moom la doon wër ci ndonka daara yi ñu def jëf ju ñaaw jooje yéenekaay bi nañu kenn nga ca mu di ndonka daara bi santuloo ay waajuram ba fi nekk nii kenn mënu leen a gis ñu gis ci l'observateur autopsie bi ñu doon def jëmee ci xale ba ñu yi moo di doomi Sénégal yi ci bitim réew wal nañu doomi Sénégal yi ci bitim réew di ay immigré ñoo ngi leen di rey ne ay xar képp ku ñu ci rey ba ñu jooy la ba indi la dëjal la daal di reyaat keneen nguurug Sénégal yi ci bitim réew ki ci mujjee faatu Mor Sile la tudd newoon Espagne yore fa boutique mbagg police Espagne moo dugg ci appartement mu tëbee ca ñeenteelu étage fa la jaaree faatu yéenekaay bi dañu police Espagne li ñu wax ba dëggal ko doomu Sénégal boobee waa ji moo gis waa police bëggoon a rëcc tax mu tëb ci étage ba ca noonee la jaaree faatu populaire nañu waaye doomi Sénégal yi nekk ci Espagne nee nañu loolee du dëgg police Espagne ñoo faat waa ji enquête dina kay nañu waa joojee Mor Sylla la tudd di doomi Sénégal ma nga ci ci mbuur amoon lu toll ci juróom fukki bàyyi woon na ginnaaw juróom-ñaari doom amoon na soxna yëf yàgg na mu demee yéen kaay bi nañu noppi doomi Sénégal ya foofe ñu ànd ak yeneen i nit ñu ñuul yu nekk ci Espagne wutali place bi di Sant Jordi mat fa nag lopp ñaari téeméeri doomi aadama nekk fay manifester li gën a tàngal seeni xol enquête dina kay nañu moo di wax ji bawoo ci Souri Kaba directeur sénégalais extérieur wax ji mi ngi ko waxee ci rajo Futur Média doomi sénégalais ci Espagne bu ñu déggee wax jooje la wax moo di Souri Kaba waxam jooje du waxi nit ku mat mënoon naa a masawu gaay yi ay yuuxu la ñu jógi ci moom i mbir foofee la ñuy nee nañu du ñoom ñoo rey waa ji waaye ak lu ci mën di xew yéenekaay bi nee nañu kilifay Sénégal yi ñoom li ñu bëgg moo di nañ ci def ab autopsie nañu def ab taxaw seetlu ci Sud Quotidien Parti démocratique Sénégal ci la xëy ab taxaw seetlu yéenekaay bi nañu gars yi Abdoulaye Wade yi naru ñoo caaxaane dara defonteeg nguur gi fi nekk la ñu bëgg fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août waa PDS nee nañu ñoom autorisation ko la ñu yamale danañu amal ab mars bu Cour suprême li mu ci mbirum Karim Wade a Sall di waa Macky 2012 ñoo i kàddu yu tàng bu Ndakaaru ba fa étudiants ñu dul ku jëpp politique bi ñoo bëgg a salfaañi réew mi indi fi fitna ba noppi liquider Macky Sall ki gëm président Macky Sall nañu la xew keroog ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mënuñu ko nangu ko ndax université barab la boo xam ne dañu fay sottante ay xalaat barab la boo xam ne intellectuel yi ñoo ko tax a jóg lamb ji nga xam ne sax nangu nañu ñu dóorante fa ay kurpañ Maguette Sène ne foofee nangu ñi ci fitna maire bu Malicounda bi di Maguette Sène directeur matériel transport administratif ba tey ci populaire nañu ndaw ñooñee def nañu li ñuy def jàpp nañu leen bu ci kenn wax nañu bàyyi yoon mu def ab liggéeyam la ca war yoon dana ko ca def d ma def dara lu dul daagu sunu lamb du ma def dara lu dul daagu wutali lamb ji ak sunu lamb ni laaj bu am solo mu di bombardier b roi des arènes ana kan lañu ko mën a booleel yéenekaay bi dañoo ñaara taxaw mu di Yaxya Jóob Yékini ak Gris Bordeaux le tigre de Fass journal bi dañu ndax ñoom ñaar ñoo ñooñee mu di Yékini ak Gris Bordeaux mën nañoo jaaxal bay sañkante